daal di dem euh, New York nag États-Unis la ñuy dem foofu Macky jamono ji ma nga ah. euh, ci ndajem euh, Nations Unies bi mu bi mu demoon mu bëri woon coow trop nag bi mu demee ba ñu koy teeru yenn ci ay militant am ña nga fa woon doon ko teeru waaye tamit ñenn ci opposition bi ñanga nga fa woon ñoom ñu semee sax foofu ay coow lu bari bëri pour ne pas dire le bordel <laughs> <laughs> coow lu bëri en tout cas fii di kura Macky door nañ fa dóori metti Ah. et moom kuréel Macky vidéo bi mi ngi circulé. Ah. et tamit Macky Macky Sall accueil bi ñu ko réserver fële nga xamante ni moom moo di euh, New York noo ko noo ko jàngatee. ah je pense que ce n'est pas la première ce n'est pas la première fois oui que depuis depuis je pense que euh, Ousmane Sonko est dans l'espace politique et surtout depuis que euh, ñi am en tout cas euh, benn vision ci politique léegi ni muy doxee mm-hmm. euh, gën a am assurance par rapport ak plein de choses euh, je pense que vision bi nit ñi gis-gis bi nit ñi am ci président de la république mm-hmm. dafa dafa dafa wuute ci lu bëri xam nga il faut comprendre juste une chose parfois je me dis que c'est une erreur euh, de penser que euh, attitude u yenn sénégalais yi ñu koy wane vis-à-vis du chef de l'État wala boo kenn koo xam ne dafa bokk ci gouvernement bi wala da nga fare ak mm-hmm. président de la république Sall nga jàpp li mbiri politique kese la da ngay nax sa bopp je m'explique mhm. dafa am loo xam ne c'est une réalité te réalité boobu mënuñu ko mënuñu ko euh, omettre mooy ne nit ñi dañ ko mere en fait. c'est surtout la diaspora hein? non c'est-à-dire président de la république Macky dañu nit ñi dañu ko mere que ça soit la diaspora que mu nekk fii ci réew mi fu mu mënti doon sénégalais ak fu mu mënti nekk dafa mere foncièrement le président de la république Macky Sall. Mm -hmm. et loolu. Euh, sentiment la boo xam ne nit ñi dañoo toll foo xam ne mënatuñu ko denc pour seen bopp te li ñu ko meree dafa dafa bëri déjà maanaam le fait socialement nit ñi li ñuy dundee rek mhm. jur na bu nit ñi amoon cofeel ci moom ci lu bëri cofeel yu bëri commencé na rocceeku leneen li ci topp mooy beaucoup de promesses yoo xam ne ay digle yu bari yu ñu def yoo xam ne il ne l'a pas respecté mm-hmm. par rapport ak ñun ñuy dundee ak par rapport à plein de choses mais li gën a naqari sénégalais yi ak li leen gën a merloo mooy l'expression de la démocratie bi nga xam ne moom la ñu nasaxal dëgg-dëgg ci réew mi mm-hmm. am sañ-sañu bëgg wax mënoo wax am sañ-sañu bëgg ñaxtu mënoo ñaxtu am sañ-sañu bëgg kaas dara mënoo kaas arrestation yu bëri yi climat de tension bi ñu fi nekkee ci manifestation yi toutes ces morts yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ci réew mi euh, que ça soit lié à l'affaire Ousmane Sonko ou pas les gens veulent aujourd'hui faire comprendre au président de la République Macky Sall que ne bu fekkente ne ci réew mi nit ñi mere nañu la ba xeex nañu ba am nañu ay toj kaas BRT bi ngay defar pareegul lépp tojatoona ah. mm-hmm. ba ñu wan la ko même boo tukkee ñëw diaspora ak foo mënti dugg ci Sénégal ci ci ci diaspora bi que ça soit muy États-Unis ou que ça soit en Europe aujourd'hui actuellement ni lui le chef de l'État ni képp ku ànd ak moom fu mu nekk nii maanaam persona grata nga mhm. en réalité c'est le contraire persona vraiment non grata nga moom ngay doon mhm. parce que avant loolu j'ai vu temps yële passé en France je pense un ministre bi nga xam ne daf fi jóge dem foofu ci benn hôtel je crois j'ai vu des gens yi nga xam ne dugg nañ ba ci biir hôtel bi ne na ministre bi génn. je pense que c'est Doudou Ka si je me sais plus lequel de c'est c'est-à-dire que kon ñoom loolu weesu na dafa dépassé lu jëm ci wàllu il faut que ñoom ñu comprendre ne xam nga loolu nag li lay li xew États-Unis moo dal le chef de l'État dal Kouramaki en sa personne je n'ai même pas m'appesantir là pour ne pas vraiment accorder même trop d'importance par rapport à tout ça mais jàngat ak lañ ci mën a jëlee mooy ne gis nga euh, actes yi nga xamante ne moom la ñuy wax nii yëpp ce sont des actes démonstratifs yoo xam ne dëgg-dëgg boom bu fekkente ne mën naa tëdd xalaat ni lii benn mu benn mbir boo xamante ne dafay ñëw rek jaar jàll mu ngi nax boppam parce que ça commence à s'éterniser quand même te lii dafa am lu ko jiitu avant ñu yegsi ci processus de violence bi li ko jiitu mooy toutes ces séries de manifestations yi nga xam ne am na dans la diaspora il peut pas l'ignorer mm-hmm. façon bi nga xamante ne moom la sénégalais yi fépp fu ñu mënti nekk di ko faire comprendre le message que ça soit via des pancartes que ça soit via des marches yi nga xamante ne autorisé wuñu ko ci réew mi à la limite ñu dem ci beneen dëkk ñu autoriser leen ko encadrer leen ça veut dire l'exemple de la démocratie bi nu war a am fii ci sunum réew te amuñu ko fii ñoom ñu mën koo ami feneen uh-huh. loolu yëpp dafa war a mën a defub jàngat mu wan ko ne gis nga élection yi ñu jëm je dis encore une fois il n'est pas trop tard pour mois pour que le chef de l'État sorte par la grande porte sincèrement jàpp naa ni lu nu ko bañ-bañ am na lu bëri loo xamante ne liggéey na ko ci réew mi en douze ans jàpp naa ni lu mu ko bañ-bañ yàlla defal na ko lenn itam moom président de la république Macky Sall loo xam ne à l'image de ses autres prédécesseurs présidents yi nga xam ne ñoo ko fi jiitu woon mooy ne am na benn am na benn aura bu ndaw bu mu am Afrique bu ko nit ñi bëgg c'est-à-dire le chef de l'État quoi qu'on puisse dire foo mu ti demee da ngay da ngay apprécier l'être et l'homme qu'il est yàlla def na ko président de la république du Sénégal jox na ko opportunité mu nekk président de l'Union africaine ce n'est pas rien leadership bi muy bi ce n'est pas rien du tout ak li mu fi jot a liggéey ci réew mi bëri na bëriwul mm. pour man dëgg-dëgg ah sincèrement yéenewuma ko en tant que chef d'état jeune que muy génnee ci façon bii mu nara a génne s'il tombe ci s'entête lui ak ni mu àndal mm. à vouloir maintenir le pouvoir d'une façon ou d'une autre c'est-à-dire que ça soit par la voie démocratique Et j'espère que c'est comme ça que ça va se passer parce que le Sénégal est un état fort quand même quoi qu'on puisse dire mais sauf que daf ci am lu bari loo xam ne dañu koo foqati ci ak ak yelleefu nit ñi foqati ko ci seeni biir xol foqati ko dans la manière de faire bi nga xam ne moom la ñu apprécié wul ci Sénégal loolu lañ ko bëgg faire jàllaloo comme message pour man dëgg-dëgg Amadou Ba mu nekk candidat mu ñàkk bañ a nekk candidat dëgg-dëgg mën nañ ko sax jàppale mën nañ ko soutenir pour la vie du parti. Mhm. parce que à part Macky Benno Bokk Yaakaar parti politique la bu war a dund. Mhm. am na ñu fa nekk ñoo xam ne ils sont jeunes bu nu faluwul nii mën nañu falu peut-être dans d'ici quelques années. Mhm. su fekkee liggéey nañu loolu. mais que way wi mu rafet. que moom li ko jot a dese as tuut que bu dee dem que ça soit par la bonne porte et loolu xam nga lu koy indi. mooy na libéré ñi nga xamante ne tëj nañu leen ci kaso te boobu ba tey ñi ñaa ngi wax te vraiment ñu ngi tëdd ci à maintenir position comme quoi il n'y a pas de détenu politique dans ce mmh, mmh. pays nañu leen libéré ça c'est la première chose Mahfouz mmh. nañu décrisper situation bi ñu nekk nii parce que dañu jëm ci ay élections présidentielles yoo xam ne suñu xel nañu bëgg mu daal nañu bàyyi leader politique yi ñu jàpp ci biir kaso yi bàyyi leen ñu dem à la personne de Ousmane ak keneen ak keneen ko xam ne mi ngi ci biir kaso bi xëy na ku ma fàtte ci sama xel. Mm-hmm. ñu war ko mën a bàyyi mu mën a bokk nañu organiser des élections inclusives démocratiques. Mm-hmm. nañu bàyyi nit ñi ñu nekk dans l'expression de leur plus grande liberté comme tout état démocratique ni mu war a dëkkee ak ni mu war a toxoo léegi li ci des mooy ñu accompagner ko mu génn palais ak ndam lu rëy su ko defee li jot a ñaaw as mën nu ko rafetal ci li des mais il faut que moom mu comprendre et que mu saisir message bi mm. bañ jàpp ne lii dafa nekk loo xam ne day ñëw nii rek jàll nii rek vraiment lii vent la rek mm. vent de frustration la day jàll non non c'est la réalité du moment une réalité boo xam ne bu ñu ko xeexul dina pérenniser wu en un sens où dañuy yegg foo xamante ne l'irréparable va se produire mm. ce qui est arrivé à Kouramaki n'est pas de très belles images mënoon naa ñàkk sauf ko moom mënul mënul bañ bi violence bi ndax moom moo ko njëkkee ci sama biir penc assemblée nationale donc looy def nag ci biir ëtt boo xamante ne pencum ndaw réew mi la tudd nit ñi fal la fa nga war a représenter l'image du député si tu te comportes ainsi mais dans la rue li ngay fekk ci mbedd mi nga fay fekk ah malheureusement rafetul jekkul te yéenewuma ko sama benn moroomu jigéen mais vraiment au-delà de tout cela ils doivent comprendre que les sénégalais sont fatigués sénégalais yi danoo sonn danoo maar ci situation bi ni ñu dëkkee nii danoo sonn ci sénégal bi ñu ne ba xam ne ñun xàmmeetuñu ko mm-hmm. sénégal biy poussé suñu ay rak ñuy dugg ci ay gaal dem di dem di dem ci yeneen i réew ba ci yenn gox yi boo fa duggee dootoo fa fa sax fekk góor yu bari. Mm-hmm. dañu waxante dëgg boobu Sénégal nit ñi ñoo toll foo xam ne ci seen i xol fees na mer nañu seen xol yi tàng na à tel point que. Mm-hmm. bu ñu comprendre ne loolu mooy dëgg ça veut que kon ñoom dañuy dem nii rek mais comprendre ñu dara ci dëkk bi ni muy doxee. d'accord ma ma mami merci Cheikh yow li xew New York noo ko noo ko jàngate et puis ak euh, manifestation yoo xam ne si nii